little figure Yes, you a winner I'm so glad to be yours You're a class all you're running Ooh, little cutie, when you talk to me I swear the whole world stops You're my sweetheart and I'm so glad that you're mine You are one of a You mean me What I mean Cause if I got you, I don't ay need you boo ay need you boo mooy dama la soxla suma gel quoi sama série boo mooy ay gel ay série yi affaire yooyu quoi <laughs> léegi après dinañ joxe mots slang yi am fii yëpp si vocabulaire bii na euh, boy bi dafa riis ay vocabulaire am euh, xam naa dina arranger ñi nga xam ne ñu bëggante quoi ay nit yu boobu mooy dama la bëgg yow sama gel ay ay gaara mooy dama war a ay gaara siiw siiw mooy gis quoi dama la war a gis yow sama gel bu and hurts all over the world tonight mooy am na ñu bëri ñu bëggante ci àdduna bi ci guddi gi nii fii boo xoolee comme LinkedIn bi ñu noonu lay def quoi and hurts sp ak all over lañ boole. and hurts all over the world tonight and hurts all over the world tonight après mu répété waat li mu njëkk a wax ci kaw ay niit yu boo ak gotta see you boo and say the hands all over tonight après fii mu ñëw ne hi little mama mooy xale bu jigéen bu ndaw bi quoi comme xale bu jigéen bi you are astana astana slang la quoi mooy yaa ngi rafet lool rafet lool mooy astana hot little figure hot nag bu ñu ko xëy ci idiom quoi mooy ko sexy mais hot mi ngi tekki tàng mais bu ñu ko waxee ci ay jigéen euh, dañ ko jëlee si góor jigéen ah bu ñu la waxee mooy yaa ngi sexy quoi yaa ngi sexy little figure figure mooy jëm bu ñu xel little figure mooy ko xam dafa sew quoi dafa sew little figure comme may taay fii noonu xaar little figure mooy nit ku sew te am taay bu kii quoi taay bu yem mu ne yes yu are a winner comme si mu ne ko dafa mel na nga dañ doon joué nga gagné sama xol quoi yes yu are a winner di ko confirmer après mu ñëw fii. ne am su glad kontaan na lool ci biir Youssou nga nga moom ma nga nekk man ma nekk sa yëf you a class only own mooy su bopp da nga am classe da am classe comme ni jigéen yi waxee góor ñi quoi am classe oh little mooy euh, sama xale bu rafet bi quoi little cutie mooy mignon when you talk to me when mooy quand mooy booy wax ak man I swear maa ngi waat the whole whole mooy lépp the whole world mooy àdduna bi yëpp stops day man day taxaw quoi day taxaw booy wax ak man dafa mel àdduna bi dafa taxaw yu ar my sweetheart mooy yaay sama série gis nga mooy niñ koy changé ay liru kii di liru liru figure ak um, ànd bi ñu ci kaw ay bu son bi dafa riis ak ay vocabulaire amul xam naa dina arranger ñi xam ne ñu bëggante trop. sweetheart mooy série quoi you are my sweetheart mooy sama série and I'm so glad that you are mine te kontaan naa tamit yow nga nekk sama yëf maanaam moom moom la nga moom ma quoi I'm so glad that yu mine you are one of a kind bu ñu waxee you are one mooy yow amatoo nit kenn comme li gars yi wax naan yow moom yàlla daf la bind ak sànni xale mi gis yooyu quoi. mais amatoo benn espèce bu raar nga mooy are one of a kind and you mean to me you mean to me mooy jaral nga ma lu nekk ma la fonk you mean to me what I mean to you man yow li ma la jaral nga ma jaral quoi dama la teg fu kawe fu sori and together buñ àndandoo ñu ñaar buñ booloo ne baby there is nothing we won't do amul lenn lu ñu mën luñ dul réussir quoi mooy luñ dugg nañ ko nañ ko réussir mooy luñ luñ song luñ song daan ko quoi there is nothing we won't do amul lenn luñ luñ loo xam ne mënuñ ko réussir lépp lañu réussir buñ mbooloo cause ndax if ay garde yu man bu ma la amee ay don't need money duma soxla xaalis I don't need cars duma soxla oto que you are my all ndax yow yaay sama lépp yaay sama xaalis yaay sama oto lépp lu ma bëgg yow yaa yow nga ma quoi loolu bëgg wax am into you mooy yow laa bëgg am I am into you am into you and girl no one else no one else mooy keneen would do du la bëgg comme ni mu la bëggee cause ndax with mooy ak every every mooy sac every kiss phone bu nekk and every hug ak câlin câlin bu nekk you make mi fall in love day tax ma gën la bëgg quoi day tax ma gën la bëgg fondi ak kala yi may def day tax ma gën la bëgg and now I know te léegi sax xam naa ay can be the only one nekkul ne man kese maa yëg li may yëg ay bet xam naa ni there hurts uh, all over the world tonight am na ñu bëri ñu bëggante si guddi bi with love with love of the life ñu ànd ak ñi ñu bëgg who feels te ñi ngay yëg ñoom what I feel li nga xam ne moom laa yëg when I'm with you bu ma nekkee ak yow am na nit yu bari yu nekk ci àddina bi daal di bëggante buñ nekkee ñuy bëggal li ñuy yëg li ñuy yëg noonu man moom laa yëg quoi moom dafa bëgg wax ne li may yëg si yow nekkul ne man rek maa ko yëg mais nit ñi xam dañoo bëgganteeg si si seen biir yëpp dañ ko yëg moo tax fii mu ne with the love of the life who feels what I feel when am moo tax mu ne when am with you with you with mooy bu ma nekk yow dama koy yëg quoi yëg-yëg boobu noonu sentiment boobu si boo seetloo baax si linking bi kenn waxut when I am dana when am when Saturday. I gotta have you and I cannot wait now. Oh, mooy bëgguma nobody else keneen bëgguma keneen bëgg quoi I don't want nobody else. Without yow sans yow budul yow there's no one left then amul keneen ku bëgg quoi amul keneen ku des ku ma mën a bëgg budul yow. Without you there's no one left then. you like Jordan Saturday you like Jordan on Saturday mu ne comme yaa ngi mel na comme Jordan ci samedi bi quoi you like Jordan Saturday I gotta have you I cannot wait now mooy dama war a am quoi nga bëgg nga nekk ak man I cannot wait now mooy mënuma xaar I cannot wait now little shorty. Say you care for me, fi mu ñëw ne hi little shorty tamit ci nooy yi nga xam ne pour woote pour wax ay mon amour ay série genre yooyu quoi ay saudi cute ay little cute yi little ay boo genre yooyu ay appellation la ablation amul euh, mu ne ko say sayu keefu mi mu ne ko waxal ne danga ma nopp quoi dama ma bëgg kee mooy bëgg bokkut ak care about boo waxee nit yi ay euh, care about yu mooy dama la fonk mais boo ay care for you mooy dama la bëgg quoi tax fi mu ne say you care for me waxal ne danga ma bëgg danga ma nopp fii know ay care for you mu ne xam nga man dama la bëgg man dama la nopp man tamit you know that I mooy dinaa fidèle xam nga ni dinaa fidèle quoi you know that I be true xam nga ne tamit du ma la fen you know you that I will try ma dinaa jéem xam nga tamit dinaa jéem def lépp lu mën to be your everything to be your everything nekk sa lépp féete la fépp quoi mu ne du ma la euh, dinaa fidèle du fen fenn dinaa jéem tamit nekk sa lépp féete la fépp. après refrain bi laa di ñëwaat. will never try and I will never try mooy I will never try try mooy jéem a and I will to deny deny mooy weddi to deny that you are my whole life du ma mës weddi ne yow yaay sama lépp ci àdduna waaw du ma mës weddi ne yow yaay sama lépp ci àdduna ndax. if you will ever let me go mooy boo ma bàyyee boo ma bàyyee ah, mooy let me go if you ever let me go boo ma bàyyee I will die mooy dinaa dinaa dee yaay sama lépp si àdduna boo ma bàyyee ma dee quoi boo ma abandonné so I won't front mooy sama dëgg laa wax ko du ma la fenn damay honnête ak yow quoi wax la li nekk li fi am li am ne la I don't need another woman mooy soxla ma beneen jigéen another mooy beneen ah another woman I don't woman bëgguma beneen jigéen I just need you all or nothing mooy yow rek laa bëgg yow rek laa soxla soxlaawuma leneen or nothing yow rek wala leneen <laughs> I just need you all or wala wala leneen mooy yow rek laa bëgg waa bëgguma keneen cause ndax if I got that bu ma amee lool bu ma amee lool bëgg si yow quoi then I'll be straight I'll straight mooy dinaa nekk nit ku fidèle maanaam dinaa jub quoi nekk du ma nekk di doxaan affaire yooyu damay jam si yow fidèle si yow then I'll be straight baby you the best part of my day mooy yow yaay partie bi ma gën a neex si sama journée bi mooy sama journée te yaam si gën a neex quoi di gën a neex sama journée bi tey yow la après refrain bi ñëwaat jigéen bu rafet bu sexy quoi mooy mooy xaal leur figure leur cuir ba tey mooy ay série genre yooyu quoi sweetheart mooy série tamit Saori mooy benn xale bu jigéen bu rafet aminti yu mooy dama la nopp ay keefu yu ba tey mooy dama la nopp ay foofu yu ba tey mooy dama la nopp I love you mooy dama la nopp boobu siiw na am crazy about you ba tey mooy dama la nopp I fall in love with you ba tey mooy dama la nopp you mean anything to me mooy yow jaral nga ma lépp maanaam fi ma la teg tegu ma fi kenn quoi you mean anything to me you are mine mooy maa la moom yaay sama sama yëf nga quoi you are my everything mooy yaay sama lépp ba tey I want front mooy duma fen quoi damay dëggu wax la li am I'll mooy ba tey damay dëggu quoi wax la li am I'll be true c'est la même chose quoi mooy damay dëggu wax li am damay fidèle duma fen quoi mooy am loyal wala I'll